ah lamb ji léegi xëccoo la de man sama xel sax dafa nekk ci fay 150 millions ci combat bu mag bi waaw bu mën a dellu 150 millions. Hmm? boobu laay wax 150 millions gars yaa ngi fay rek lu ne ah maa ngi koy xalaat ba xam maa ngi dajale 150 millions yi léegi mu mat waaw su mat ñoom ñaar ñëpp ku ci ne waaw kenn du ëppale sa